A'udzu billahi min asheytaani rajim Bismillahirrahmanirrahim. assalamu rahim mbokk yi di sewal point net sëriñ Mbàkke ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem kuy bayyi xel site internet bi di ñaan sunu suñu kàddu fekk ñepp ci jamm. di sant Yalla bu baaxa baax mi nga xamne mo ñu defal tawfiix ba ñew fi ngir and ak yeen. kàddu yo xamne ne dañ ko bëgg yëkëti ngir wax ak lenn ci sénégalais yi ak sénégalais yi ñuy diglu. Wa jangat bi ma ci am bi ci jitu ñi ngi Cheikh Mohamed Khalifa général de Mauritanie di ñaan suñu borom may ko fan wu gudd lool tam ànd ak wér noonu laa koy ñaanale mboolem xalifa yi ci buntu kër sëñ Touba yépp da ci commencé Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadou murtada di ndokkel julit yépp ci bis bu tedd bi nga xam moom lañu génn muy bisub safar gi di ñaan suñu borom fekkaloo ñu ko ay at yu bari laaj nga laaj bu am solo mooy soxna soosu ñuy wax soxna Aïda Diallo doonoon soxna ci Cheikh Béthio Thioune li nga xamante ne sëñ bi digaloon na ko mu mel daf ko xët ba tax sëriñ bi yëkkati kàddoom barki ko wax ci waxam ju reey jojja ñoo ngi koy tuubal ci kàddu yum yëkëti ndax nun waru ñoo wane ak doye di ba sëriñ bi di yëkëti yoyu kàddu waye nak dafa jot ñu léral taxawaayub lan mooy cantaakoon mooy cantaakoon yu lu ci bari dañ leen identifier comme mouridisme bu gëm sëriñ tuba mais cantaakoon ñu ci bari dañu gëmul sëriñ tuba ñom personnellement cheikh beccu lañ gëm ñu ci bari mu orienter leen ci aydo diallo kon ñom reconnaître wuñ sax sëñ muntaha mi khalil général de mourid ndax yoonu mourid ni mu bi fi sëñ bu mag bi di jógee ci saayir fi la bayyi soxna Fadja seigne Modou mustapha moko fi wut te taxul li ëpp ci yoonu yu jébal woon ci soxna Fadja waye buñ ko ariyeele ba ci suuf day jégué day jégué lu ñu jégal leen ko moy Serigne salim Mbacke bi mu fi la bayyi soxna walu doomam bayyi fi Serigne Cheikh mbolo mi ñu ci bari dañoo jébbalu ci Serigne Cheikh ak ñi nga xam ñoo fi nekk ci njabot gu gor gi kon buñ démé ba ci ko xam day tegtaloo Serigne saliw di jël ay di def bop neen di yok ay ay ay karaw di def mbollem lo xam l'islam da koy téré te yoonu mourid kon déclaration bi Serigne taxaa def séntu woon nañ ne Serigne bi dana def lu mu ne ndax luy lislaam lépp loo xamante ne xeetoon ak lislaam ko ko jalgat Serigne bi moom amu ci saako te ci masla rawatina nag li nga ne mooy yoonu murid te liggéey bi ak sa ci loxoom mu yore ko fi mu toll xam nga ne bu dee lislaam moom ay sart la mooy li la ciy dugal yaa koy wax muy baati seede yi mooy bëgg ngaa dugg ci diinay lislaam nga wax baati seede yi doon ab jullit la la cay génne it yaa koy jëf mooy li nga xamoon ne wax nga ko nga jëf safaan ba moo la ciy génne bu dee yoonu murit li ñu ko tënkee mooy ak taalibe ku ci dugg yaay joxe sa bopp aslamtu nafsi jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira loolu kilifa gi nga jébbalu nga koy wax léegi nag comme sëñ Muntaxa mooy borom yoon wi te dem nañ ba xam ne lim digle woon defe ko ba sëñ bi wax ko ci discours bi ndax bi mu wax ci njëlbeen gi rek dane maa ngi wax waaye bu ma sañoon bu may wax li may wax am njariñ c'est-à-dire que nag xam na ne mi ngi wax waaye li mu wax leer na ko ne ki muy waxal ko dégg wala boog du ko jëfee ndax fekk na ko ci njaareem ci tamxarit gi sëñ bi la ko waxoon it mooy mu tënku ci lislaam njàngaleem lislaam lépp loo xam ne sëriñ bi bëgg na ko mu tënku ca loolu lislaam indi mu tënk waaye nag sëriñ bi digalu ko loo xam ne moo ko ko digalal boppam daf ko digal li ko lislaam digal tere ko li ko lislaam tere digal ko li ko sëriñ tubaa digal tere ko li ko sëriñ tubaa kon donc sëriñ bi dafa yeesalaat ndigalul lislaam ci kawam yeesalaat njàngaleem sëriñ tubaa ci kawam léegi bu ñu demee ba loolu lépp am sëriñ bi woo ko bër ki démb ci guddi yeesalaat ndigal yooya waaye yeesalaat tere yi nga xam moom la ko doon tere bi mu génnee nag mu mel ne daa waxewaat beneen ba tax ku tedd ki génn waxe kàddu yooyu kon moom dafa mel ne li ko génn ci lislaam moo ko jëf waaye li ko génn ci yoonu murit moo ko jëf donc kon loolu la ciy ab atteem nag mooy dégg naa sax nii may waxee yow nii def na ak tuub waaye tuub goo xam ne lu jiitu ngay tuub da ngaa dem bam leer na ne amatoo sécurité ci sa bopp leer na la it sa njëlbeen ñaaw na waaye it amatoo sécurité ci biir territoire Sénégal ndax xam nga ne fépp murit yaa ngi fi nga njort ne boo tuubu tey ji jéggalu mën nga ci am problème nga taxaw tuub tuub tuub naa rek ngir bëgg a layal sama bopp loolu daal dayut ci ak tuub rawate nag ci jumtukaay yi nga xam ne moom la ko jëfandikoo mooy toog ci sab saal nekk ak Saliou Sam wax première partie bi deuxième partie bi nga wax ne maa ngi jéggalu ci biir jéggalu gi mi jéggalu ñu dégg Saliou wax ci wax ju doy war ndax wax na ne Serigne Saliou moo leen waxoon ne le doomu aadama yàlla sun borom subhanahu wa taala bu la tuddalee say ayib bëgg dimbali waaye doomu aadama bu la tuddalee say ayib dalaa bëgg a weer c'est-à-dire que ne ñi ngi wax ci turu di leen Serigne bi wax mi ngi nuru ak weer ak vilipande waaye sëriñ bi ñetti jataay la am ak ñoom jataay bu ci nekk dafa ami seede jataay boo xam ne caméra génnut rajo génnut enregistrement génnut dara génnut mu wax ak moom ci ni ko lislaam bëggee ci ak laabire waaye comme dem na ba dajee na yooyu yëpp te defu ko nag mi ngi daj ci di génn ci internet bi di wax looloo tax nag sëriñ bi wax ak moom ci pénc mi wax ak moom ci pénc mi nag moo waral mu dellu ginnaaw ne kon mel na na génnuk sëriñ bi solution la ci wax ji waxoon ndax fi may waxee yow bu fekkente ne Saliou Samb day def bu sëriñ bi waxee ay day yabal ko mu contrecarrer jëf ji wax waxe señ bi ni inversé ko waxat ko nenen dafa jot nak murit yi yamale ko palaasam xamal ko nako kenn la ci taalibe señ touba yi do dong amu fi xam-xam do dong upp fi xam moom dong jàngiwutoon ñu ko upp xam-xam fokk ñoo nek ci yoonu murit ndax Saliou Sam bude dee señ sëñ la na xol ci señ Saliou mbacke bimu fi bayiko bayi fi soxna wàllu ak señ Cheikh ni mako wax won legi njabot gi ñu ci bari dañoo jébbalu ci señ mustafa señ Abdou Khadir cheikh Amadou mortaba señ Basirou ba ci señ Cheikh waye ñepp jugu ñu jox seen bop soxna wàllo donte soxna wàllu doomi sëriñ Saliou la waaye nag li ñu xam ci lislaam bi sëñ Modou Moustapha jógee ni nit ñi defoon topp sëñ Modou Moustapha waaye fi lañ bàyyi woon soxna Fatou Dia def nañ ko doomi sëñ Touba waaye taxawutoon ñuy yeeslu ci moom ngir jox ko ak njébbal donc moom xam-xamam bi mu yore daa war a natt ci ñaar ñooñu lan la ko ci diine may moo mooy li ko sëriñ bi tere mooy li ko lislaam tere li ko sëriñ bi digal mooy li ko lislaam di digal yooyu yëpp nag comme am na ci te doxewu ci noo xamante ne mooy doxee ndigalul sëriñ bi looloo sabab déclaration ci sëriñ bi jug moom it muy contrecarrer waxe sëriñ bi waxtu wu ci nekk buy wax ak bi sax day mel na kuy wax ak moromam day indi ay addis ak aaya di mel na kuy jonganteeg sëriñ bi ci wàllu xam-xam donc yarade ko googu am ci Saliou Samb ak feeñ ci ki nga xam ne moo ko yilif muy Aada Diallo moom loolu waral nag murid yi war koo yamale place mooy ndigal li mu jot mooy sëriñ bi ne nan ko yóbbu ca mbalit ma loolu la mourid yëpp war a takkatoo ne kii kat dañ koy ràññeen identifié ko ne bokkagut ci yoonu mourid nañ ko teg na la te bañ a waxtaane ay waxam wala ay jëfam waaw xam nga li may faral di wax mooy cantaakon yi li nit ñi war a dugal ci seen bopp yi mooy ñoom gëmuñu sëñ Touba reconnaître nañ ne xalifa général de mourid mi ngi am ñoom liñ gëm rek mooy Cheikh Béthio lañ gëmoon Cheikh Béthio bi mu fi jógee da leen orienté ci ayda Diallo ñu bari dem nañ topp ayda Diallo mais reconnaître wuñ Serigne Mountakha mi de mourid moo tax jëluñu décision tàggaloog Aïda Aïda it bëggut a perte pouvoir bi mu yore ndax ci fi mu bokk yëpp mosuñu dund wàllu pouvoir moo tax saa wax day feeñ ci ay waxam sama taalibe yeeg ñi ma jiite jëwrin te loolu la ko sëriñ bi aaye bi mu mujjatoo ko sëriñ sëriñ bi da ko tënk ci lislaam ne ko nag créer ay daara daara yoo xam ne da ciy jàngale ay ndaw la yore ñoom ñoo ko topp mu doon seen jëwrin ci li mu wax jëwrin nag sañ na ko doon waaye ci njaboot gu jigéen la sañ nekk seen jëwrin te jëwrin gi it dafa am ay charte mooy mu tane leen ci seen diine tane leen ci seen lislaam tane leen ci njàngaleem sëñ Tuubaa ba nga xam ne kenn ci ñoom koo xam ne jalgati na ci rek mën naa koo lijjanti ci wàllu diineem waaye orienté ko ci wàllu lislaam ba nga xam ne li mu bëgg lépp dana ko def waaye sañu cee corriger kenn koo xamante ne bii sañ naa nekk koo xamante ne bii sañu cee corriger nit koo xamante ne bii ci wàllu diineem ci wàllu lislaamam tënewu ko ci kooku sañu te yekk jiida yooyu léegi nag bu fekkente ne loolu la ko sëriñ bi aye te wax dana feeñ ci biir kàddoom ne moom njiit la moom jëwriñ la mi ngi nangu njëbal mi ngi tuddi doom mi ngi takk ay sëy te loolu la ko bi ay daane ko tuub kon maanaam génn ci mbedd mi dugg ci mbedd mi rek waaye lépp ci mel ni mbedd mi nga jëm waa xam nga coow lu ne man nañ koo créer ndax li ci lenn li coowul sëy la kooku sunu yoon mën na cee bañ a nekk waaye ci mouridisme wërta créer mbir ndax murid moom tënku la rek ci ndigal bi day digle nga def mu tere nga bàyyi ak doon ci sart yi moo lay dugal ci mouridisme bu dee kantaan ci ni mu doon nekk ak Cheikh Béthio ci mbirum sëy kooku seen vie privée la seen mbirum bopp la waaye su ma la mënee wax li nga xam ne mooy dëgg mooy jëmmi cantaakoon li ñu identifié na cantaakoon ak doxin wi mooy catul yoonu murit cantaakoon ak doxin wi mooy catul yoonu murit parce que ñi sëñ Tuubaa defar seen i maam bari nañ te ba sëñ Modou Moustapha toogee ba sëñ Mountakha mi nekk kenn mësu leen a corrigé dañoo xool njàngaleem sëñ Tuubaa ñu jaar ca xool diggali sëñ ñu jaar ca waaye xool fa mag ña nekkoon ñu jaar fa waaye émotionnel jëmmi cantaakoon bi mu xewee ak naga ni ñaata yoon lañu leen corriger ñaata yoon lañ jam lislaam jaare ko ci ñoom ñaata yoon lañ jam yoonu murid jaare ko ci ñoom kon jëmmi cantaakoon mooy loo xamante ni bi phénomène la boo xam ne dama naan mooy catul yoonu murid ndax li fi nekk symbole ci yoonu murid ñu mën ko tudd tey jii te yoonu murid di ko bénéfice amut lenn lu ci cantaakoon def ñu ne la kër sëñ Touba gi cantaakoon yi lañ ko jox wala kër nangam wala kër nangam wala liggéey bi cantaakoon yi lañ ko jox kon daq ñu fi liggéey ëpp ñu fi pësteef dàqu ñu fee jaamu yàlla parce que taxawagul jataayu jaamu yàlla taxawagul barabar alxuraan te dañoo tënku ci biir murit gi waaye boo dee xool jëfin wi ñu doxee ak ak ak li nga xam ne moom leen jël góor taxaw toog ci kaw ay jigéen di ko jox loxo lislaam andi andiwul loolu jigéen toog ci kaw ay góor sukk ci suuf di ko jox loxo lislaam indiwul loolu waaye donte dañu identifier seen bopp cantaakoon bokk ci njabootu Serigne Saliou Mbacké dama naan cantaakoon ci ni ñuy doxee seen image ni ñu leen mën a jàngate ji ñoom ñooy catul yoonu murit ndax fi mu ne loo mën a xool ci yoonu murit ci histoire saa boo duggee ci ñoom gag waxtu julli dana jot duñ ko matal seenum njàng soriwut ay ndaw ci nekk yu bari yu war a xam sëñ Tuubaa te xamulu leen kan sëñ Tuubaa bi ñu ñëwee dal ci cantaakoon dañ leen a wax kan mooy Cheikh Béthio Cheikh Béthio sëñ Tuubaa ça n'a rien à voir Serigne moo defar Cheikh Béthio mais nag Cheikh Béthio du sëñ Tuubaa sëñ Saliou doom la ci sëñ tubaa sëñ Tuubaa moo tax sëñ Saliou am léegi nag cantaakoon bu ñu identifié rek ne Cheikh Béthio mooy am léegi reconnaître ñu sax sëñ Saliou ndax bu ñu reconnaître sëñ Saliou danañ reconnaître ak njabootam bis bu set ñu dégg li ñuy wax ci njabootu Serigne Saliou gi mën na la ci jox benn bi Serigne Serigne Béthio wàcc bi liggéey Serigne Mountakha wax Cheikh Bass ne daa bëgg ñu indi ko fii ci Touba ndax moo gën ci moom leeral jataay bi leen Serigne Saliou boole woon. waaye ñoom ñii ànd ak Aïda Diallo tey ñoo ne woon du ci dal taal seen oto dem Ndakaaru ci aéroport bi ñu teg force de l'ordre ñu xam ne fii mënuñu fi bénéficier ñu taal seen oto ñëw fii ci bàq y biir armeel yi dañ faa taxaw di dagg saaga ndey ci biir jumaay biir armeel Touba sering bi jógewaat fi yabalat Cheikh Bass ca Madinatu Salaam keroog bën ñëwee dañ doon yuuxoo naan war ngeen Cheikh Béthio ñi and ak Aïda Diallo ñoo ko doon def tay ñu denc ba pare ñu tek sen tank fi Cheikh Béthio teud parce que dañoo wax na fam waxon na fa lañ koy denc fofu ay barab ba recrutourné fi sëñ muntaha wax mo fi nek waye njabatuk sëñ Saliou gi lu ne wax nañ leen ko ñooña tay ji ñoo jug du sukkat ak ram ak tuub ñu ngir tuubug genn ci liñ nek waye dañoo tuub ngir tuubug ñak pexe ak bëgg a wat seen bop ngir bëgg amaat place bu baax seen togaay gëna jek tuub gi lool la tuub nag dafa am ñaar mooy tuub gi nga xam ne da ngay tuub mu mel ne da ngaa jóge ci xale sawara mu wér la ne ku la yeewoon ci ay nelaw ak ku la mën a fitnaal ak lu mën a xew doo ci tegaat sa tànk tuub googu mooy tuub mooy def nga li waaye wér nañ la dootoo ko def muy ci loo tay ak loo tayut waaye tuub gi nga xam ne da ko tuub ngir tuub nga kat boo tuubut jiyee mën na laa dal tiit nga ci sa bopp amoo sécurité problème am na bëgg ngaa calmer coow li tuub googu mooy gi mu mujj def mooy mu toog ci saalam woo Saliou Samb Saliou wax première partie bi mu wax deuxième partie bi sëriñ bi jéggal ko waaye nag jéggal gi du jéggaluk dama laa jéggal far la ci li nga nekk wala dama laa jéggal d'accord naa ma ak yow ci li nga nekk déedéet jéggaluk jullit bu jéggalu mbokkum jullitam sëriñ bi ak njabootam ci la ayda bokk ba nëga ni ndax boo tënkee sa bopp ci lislaam ci njabootu sëriñ bi nga bokk boo jalgatee nag sëriñ bi boo jéggaloo daf lay jégg waaye jéggal gi da ami sart sëriñ bi daf ko jéggal ci ne ko ndigal la ma la doon wax laay yeesalaat ci yow tere ya ma la doon wax laay ci yow boo tënkoo ci lislaam tënku ci ak taalibe amut ak moom problème waaye lii ko sëriñ bi doon digal moom la bañoon kon soxla wutoon muy jéggalu te même bu jéggaloo sëriñ bi ba pare it suba day delluwaat ci ndax ba tey mi ngi doon kilifteefu ci cantaako ni bi mu def déclaration di tuub rek wax na ko ci biir nee na maa ngi soññi ñi nga xam ne maay seen jëwrin te loolu lañ koy tere tey jii yàlla dogal bu yàlla dogaloon tey jii ñu ne la Aida Diallo am na beneen kër bu beneen borom kër bu sant Camara wala Tunkara ca Fongola mi la jëm cantaakoon yi ànd ci moom kooku mooy seen sëriñ ndax mooy sëriñu seen sëriñ dafa war a am boroom kër am ku ko war a denc léegi ñoom bul joxe seen bopp Aïda Diallo keneen kiy denc Aïda Diallo lu muy doon ci ñoom dañuy daal di indi tas indi lu bokk ci yoon wi li ñu war a def mooy dem jokk ci ki fi sëriñ Béthio bàyyi wala ñu dem xoole ku matu sëriñ ñu dem topp ci moom ça n'a rien à voir ak jëwrin Aïda mën naa nekk jëwrin ñi nga xam ne jigéen lañ ci toolu lislaam bi ndax boo duggee ci biir kër sëriñ bi fu ci nekk da nga fekk jëwriñ ji jigéen waaye la muy jiite mooy daayira yuy contribuer ci ci ci compte sëriñ bi ñoo ñu ay jëwriñ la ñu doon waaye ça n'a rien nag ak jëwriñ ak nangu ndigal kooku beneen affaire la sëriñ bi bàyyiwu ko fi woon léegi nag bu nit ñëwee ci phénomène bu bees bëgg ko fee indi tegtaloo sëñ tubaa sëñ tubaa njabootam mësuñu ko def tegtaloo sëñ saaliw njabootam mësuñu ko def l'islam mësuta indi loolu yonente bi bi mu fi jógee l'islam mësuta indi loolu léegi loolu dafa jot ñu def alerte wax ne umma islamique bépp jatu nañ toog di ñu diglu dañu xool lan la yoonu murid di wax ci kii bu nuy jam ci la ñuy jaar ëllëg te ji bu waxaat bi bi jugee wala salafis bi jug au lieu que muy tudd sëriñ bi day indi ay dajal teg ci taabal ji danaan ñi ñoo ko ci far bu fekkee mi ngi ci yoonu murid tey def lu bon loolu bu ñu identifié ay dajal dañ koy solaale yoonu murid gépp te fekk moom moo jëf-jëfi boppam looloo a sëriñ bi àndut ak moom ci position boobu l'islam ba mu taxawee ba nëgëni yoonu murid taxaw ba nëgëni doxin wi ma dox kenn mësu ko fee gis moo tax ma ne la cantaakoon mooy catul yoonu murid ndax ñoom gëmuñu sëñ ndax mënoo gëm sëñ tubaa kilifa xalifa sëñ tubaa joxe ndigal nga ne du def mu jox la yoon ay ndigal nga xëttu ko jox la yoon ay ndigal nga xëttu ko ci benn semaine xalifa général de murid génn def ay déclaration nga contrecarré mu defaat déclaration nga contrecarré ba mu jug waxalaat boppam kon kooku gëmul sëñ tubaa yoon wi murid boo xasee tënk rek ndigala la ci tënk ay tere ndigal ak tere ñooy ànd comme ni ko sëñ bi leer la waaye nangu maa jëfe ndigal nangu maa bàyyi ay tere kooku da ngaa ber sa yoonu bopp waaw. maanaam mu mu maanaam bu ma ko doon conseillé première bi rek dawi xam sart ab jullit lan mooy lan mooy duvaaram li nga xam ne jullit jullit bi la tënk mooy ak jaamu yàlla hmm. tënku ci lislaam bu paree nag xam lan mooy sart ab murit mu tënku ci bu xamee li ko diinam tënk xam li ko yoonu murit tënk. loolu mooy premier conseil bi parce que bu boobaa dootu jum fokk mu wuti borom kër wala mu wuti neneen méthode bu muy jaamoo yàlla ndax borom kër sax du force moom mooy xool ka bëggati loolu du force waaye nag ci méthode bu lislaam lu lislaam teg ci boppam la loo xam ne bu ko jalgate yan wi daa war dal ci kawam ci sart yoonu murit it lu mu teg ci kawam la bu ko jalgate yoon wi yan wi daa war dal ci kawam mooy fu mu mën a dem ci àdduna ak ko ko mën a far ak ku ko mën a ngemb mooy yoonu murit daa ami sart lislaam daa ami sart man bu ma ko doon xelal même bu munta dem ànd jeeg Saliou Thioune mbooloo mi bu mu leen téyee naj leen mbooloo mu war a gindeeku ci lislaam la ay ndaw a ci ëpp la majeure partie ñi mu àndal ay ndaw lañ ay 30 ans ay 40 ans nangam ne xale yu ndaw a ci nekk ñooñu dañoo war a xam seen lislaam waaye dañoo war a jariñu dañoo war a raw fa Seex Béthio nekkoon fa lañ war a nekk fi Saliou Thioune mi nekk fa lañ war a nekk mais boo leen najee ñoom jàngaloo leen yàlla jàngaloo leen yonent bi jàngaloo leen sëñ Tuubaa naj leen ci menn mbedd ñu dëkkee tàccu ak a ak a def ay cotisation wane ne yoonu murit moom comme ça mbirum business la yoonu murid problème bu xaalis bu doon problème xaalis Alaaji Njuuga Kebe bi mu defar tali bi multi milliardaire la woon yàqut ci taalibeem dara sëñ Abdou Lahad sant na ko ba tàyyi ji li mbay yi nga xamante ne bi jaar nañ fi ak liñ liggéeyal yoonu murid ak borom teraanga waaye ñi nga xamante ne bi ay cheikh lañ te waxtu bu sëriñ bi xàllee dara ñu fekk si ko ci seen pas-pas ak seen pësteef yàqalu seen taalibe dara mais bu fekkente alal da dem ba jàpp ne moo la mën a may pouvoir ci yoonu murid ba saa wax li ngay njëkk de mooy cotisation nañ yóbbu addee fee nañ xaaj nañ waaj université nañ nangam déedéet yoonu pas chef moo fi nekk te chef ak talibé koy jiital su ma ko doon conseil mbedd mi ma koy sol mooy na xam li ko diinam sant xam li ko ak talibé sant mooy li ko sëriñ bi tere mooy li ko sëriñ bi digal mooy mu mu mu mu jànkonteeg ndigal yi moytu tere yi mooy li ko lislaam sant mooy li ko taalib li ko li ko muridisme sant amut problème ak sëriñ bi li may tëjee daal mooy coow li bari na te it attaques yi bari na ak menaces yi ci phénomène fii ci jamonoy réseaux sociaux yi nga xam ne mooy jumtukaay bi nga xam ne moo gën a mën a yàq ci àdduna waaye lu ci bari ci noonu la ndax boo dee xool waxaabit bi nekkut ci biir mouridisme di contrecarrer mouridisme dafa nekk waxaabit fee di xool ci mouridisme lu mu gis ngir mën leen a contrecarrer ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir mouridisme nag te ne sëñ Touba lañ yaakaar dañuy moytu fenomen yu mel ne Aïda Diallo ak Saliou Samb yi buñ ci gisee luñ ci war ku ci nekk mën nga ci liggéey sëñ Touba te doo ci xaar sëñ Mountakha waaye bu fekkante ne gis nañ nit di yàq nga di ko nëbb sëriñ bi rek première yàq bi ci ñun la kay identifié di wax bu ëllëgee du wax du wax du wax Aïda Diallo du wax Saliou Samb yoonu murit lay wax te yoonu murit am na ñu ci nekk seen pas-pas seen pastéef yëguñu dara coow li li mu am am ko sax waaye xolal maandu gi ci njabootu sëriñ Saliou gi wane ñoom la ñu tudd seen bàyyi ndax kenn dégg na ci sëriñ Cheikh yëkkati kàddoom kenn dégg na ci sëñ Moustapha kenn dégg na ci Soxna Wala kenn dégg na ci sëñ Basirou kenn dégg na ci sëñ Mourtala mën nañoo wax waaye dañoo tënku ci ndigal bu sëñ waxee rek pare nañ ci ñoom bu digalee ñu def bu teree ñu bàyyi kon ñoom ñi identifié wu sëñ Saliou nañ xool ci njabootu sëñ Saliou fañ nekk ba fi sëñ Saliou jógee ba nëg ni mosoo dikk déclaration nga dégg ko fenn ñu ne la sëñ Seexum sëñ Saliou way wax tey nangam lay wax lu concerné yoonu murit yurut baat bi am na fi kilifa kon foofu mu tënk ci wàllu ndigal ñoom ñi identifié wu seen bopp nañ tënk foofu ci wàllu ndigal ak kilifteef maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah